jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Baol Info TV euh, maa ngi leen di nuyu àll si la maa ngi lay nuyu yow nga nekk opérateur économique nekk responsable politique APR fii ci Touba maa ngi lay nuyu Baye Alla. waaw Abdou Khadir ñu ngi lay fay di la sant gi nga ñu ñu dalal. Baye Alla la bëgg a laaj sa xalaat ci li nga xamante ni tey mooy élection locale yi ci département bu Mbacké ndax dañoo gis ne dafa am coow loo xam ne dafa commencé juddu. ndax dafa am ku ñuy wax euh, Serigne Modou Bara Dolly mu nekk responsable politique APR moom mu nekk ci zone xayra te dafa gis ne zone xayra boobu euh, maire Touba di Abdou daf ko bëgg a teg loxo yéen benn Bokk Yaakaar da ngeen a def onze zone ci Touba mais zone yooyu est-ce que mooy seen solution pour ngeen gagner. waaw man soo Abdou Khader maa ngi lay nuyu baax di la sant di nuyu sëñ Modou moomu nga wax ak Abdou Lahad waaw dala xamal nag man Sony naka jekk bañ koy former itam man Aliou dafa am lu ma jàppoon ni man moom mooy war a mën a doxal Touba. ma àndoo ci woon ci Sony. waaw ni ma ci war a ànd cent pour cent àndu ma ci. teew nag doon naa yor sama son doon ko doxal mais biñ ko defee ba noppi dama leen man milieu de terrain laay def. la moo tax lan moo tax zone yi zone yi du solution. waaw du solution mooy li ma la wax rek man li ma wax ne la man milieu de terrain laay def Sony baax na kenna na tablu ne baax na mais boo xasee ni zone bi nangam laa fay yóbbu waa zone bu ñoo ko moom mën naa am ki nekk APR ca la ki nekkut APR it bu nekk ci laa munoo ko cee génne kon yaakaar naa fekk responsable yi nga xam ne ñu bëgg parti bi lañ ñu bëgg a liggéey lañ ñu yéene pay sa ndam ñooñu nga jël leen yow da nga yaakaar ne da nga yaakaar ne kenn ku nekk war naa war naa mën a jóge xayra dem daaru xulóos dem aliya dem daaru maanaam fu ko neex dem waa xam nga Touba mooy sañc sañ ay sancaan la dafa yaatu yaatu googu mu yaatu nag fenn fu ne da nga fay am nit mu ñëw di la seet si kenn koo fi gis muy def am ndaje wala mu ndaje danaan maa ngi jël carte sàngam jël carte sàngam quartier yooyu nag ña nga fa am danga leen a war a lu mën a xew nga mën a fexe ba dem ci ñoom lu xew ci part bi la ñuy jot nga fexe bañ di ko jot. da nga leen di jàppale ñu mën a dem wata ji nga di ko def. waaw mais léegi pour ñu expliquer zone yooyu tey par exemple tey bu doon zone xayra la. ñi nga xam ne ñoo nekk zone daaru xudóos te bokk ci benn bokk yaakaar ñoom dañoo amul sañ-sañ ñëw ci zone xayra jóge daaru xudóos ñëw ci zone xayra wala waaw mooy comme li ma ko wax rek xam nga yow bu fekkee da ngaa nekk cib seen te bëgg a liggéey te nekk xayra te nekkal la fa soo amul taxawaay dem fekk ko man naam du gis ci élection yi dara man loolu daf maa dal moo tax man biñ defee ba pare rek man dama ni leen man millier de terrain laay def bëgg naa fu fu sama nit nekk ci dëkk bi rek man danaa dem mais xam nga tey Baye Alla yow bu dee da nga nekk zone Madiyana wa euh, am ay militants yu nekk zone xayra boobaa nooy def dem xayra man fu sama nit nekk rek danaa fa dem fépp ku nekk te bëgg a liggéeyal parti bi itam dinaa la fa fekk su fekkee amoo ko waxal. man dinaa fexe mais yéen yéen seen liste bi liste benn bokk yaakaar bi mu génnee ñu investir euh, euh, Matar Diop ci département bi bëri na ñoo xam ne ànduñu ci bëri nay ndaw yoo xamante ni tamit wane nañ seen ne ànduñu ci. Euh, ñu ñu ñu toftalaat ci ñu toftalaat ci maire bi Abdou Lahad Ka ak moo Modou Bara Dolly ñoom ñaar fi mu ne nii ñuy wax ci mbirum zone est-ce que du leen gën a indil jafe-jafe. jafe-jafe moom fi am gone yi man li ma gis ci man li ma gis ci politique daf moom ko xamut ndax ñoom liñ doon wax mooy eh, eh, nañ fexe ba jox ndaw yi ñu ñu ñu liggéey président def li mu war a def seet ki ci gën a nekk ndaw wala nekk na ndaw bokk te bokkoon ci ñi sos parti bi mu jox ko ni ko jiiteel kon yaakaar naa kenn koy am loo ciy d'accord ak loo ci ñàkk a dookar waratu ci am su fekkee dañoo bëgg ndam moom ku ñu nu toppal rek dañoo war a taxaw jàppale ko te xam ne ndam li ñun ñëpp ñoo ko bokk man daal amu volontaire ci dëkk bi fu ma war a dem bu soobee yàlla dinaa fa dem liggéeyal président. léegi maire beeg sëñ Modou Bara Dolly loo leen doon wax tey boo doon doon wax tey ban taxawaay nga jàpp ne moom la war a amee fi ñu toll nii. ñoom taxawaay bi ñu am fi ne nii nekkuñu ci heure wax nekk euh, euh, waxante nekkuñu ci li ñu nekk mooy xool naka la ñuy def ba gagné comme dañoo def liste bi ñii ànd ci ñii àndu ci képp ku nga xam ne ànd nga ci waroo fee nekk di ngaayoo ak a xiroo li ñu war a def mooy bëgg parti bi bëgguñu parti bi ñu xam ñu bëgguñu parti bi waaye na fiy soxla di xëy ko ngaayoo ñun loolu xamuñu ko. ñun gis dinañuy gis ñu naqar mais dañ koy ñun fas yéene liggéey liggéey ba am ndam boo amul ndam it loo mën di soow loola du am njëriñ. waaw mais ngeen gañe nag benn bokk yaakaar ngeen gañe département bi dina jafe. jafe du ci am liggéey la ko laaj te ñun dinañ liggéey ba ñu xam ne liggéey nañ. ah mais su fekkee liggéey moo koy laaj ak dem ci nit wax ak li nga leen di wax nga def ko bu dee looloo ñun dinañ ko def waaw mais na bëri dafa bëri ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi woon ci benn bokk yaakaar wala ci APR ànduñoo benn bokk yaakaar fi mu ne nii ndax d'accorduñ ci mataar mi ñu jiital euh, bëri na tamit yéen bàyyi àll bëri na ci yéen yow même boo ci bokkul am na ñeneen ci yéen ñoo xamante ne fi mu ne nii dañoo téye seen loxo waaw mooy téye gi seen loxo mooy ñàkk bëgg xam nga mbir moom boo ko bëggee ñu taxaw ni dañuy fal euh, euh, adduna bi départ kii gépp ñu ni bàyyee nañu ak suñu xalaat paysan lu ci def rek loola doy nañu président tànnal ñu seetal ñu ku nga xam ne ndaw la bokk na ci parti bi bokk na ci ñu sos parti bi am naag président tamit yëggu nga xam ni ñëpp xam na ni lu ko waay wax te nga xam ne lu ñu war a toppatoo ci président la dana ko toppatoo kon suñu amee ko mel noonu dañoo war a taxaw jàppale ko bañ am ndam ba pare. mais président président est-ce que waru leen woon a consulter mu laaj leen seen xalaat. na leen a investir. waaw maa ngi kenn. Sénégal ba Sénégal daj loolu laa wax comme consulté wul kenn kenn ñëpp dafa leen a tànnal bi mu leen tànnalee te ki leen tànnal tamit ñim tànn ñëpp président demul di naawoo kenn pour tànnal ñooñu. waaw mais mais bàyyi àll tamit est-ce que président Macky Sall dafa war a toog ci palais Mbe wala toog si Mermoz bëgg a tànnal Sénégalais yi ay maire. waaw mais Sénégalais yi ñoo ko nangu comme wax nañ ko ko ni ko loo ci def d'accord nañ wax nañ ko ko ba def na ko ba pare dañoo war a fexe ba def ni ñëpp fexe ba am ndam ah kon hmm? kon yéen am na ñu doon wax ne dañuy xaar ba président def li muy def kon yéen taxawaay bi ngeen waroon a am mooy président nañu bàyyi ñun ñu tànnal suñu bopp mais yéen da ngeen waxoon tànnal ñu. waaw loolu ginnaaw wax nañ ne ko nag tànnal ñu ba mu tànnal ñu ba noppi li fi des mooy soo bëggee parti bi te kim tànn bokk ci parti bi au début mi ngi ci woon. bu dee ñeneen ñi wax d'accorduñ ci tam surtout ñu ko jàng gënuñu ko bokk ci parti bi kon yaakaar naa ñoom xëy na dëkk bi moo leen am lu leen ci naqari rek wala bëgguñu tamit xëy na ñoo am doom waaye ndam li bu ci yàlla ko am waaw mais pour ngeen gañee li tax ma ne pour ngeen gañee du yomb soo xoolee tey Mame Khary Mbacké soobu woon na doon jàppale président Macky Sall gis nañ ne mel na ne euh, tegg na tànkam ku mel ni Paada Jaxate doon def ay activité politique wala ay ndawam gis nañ ni tekkaaral gi ci am Euh, Moustapha Cissé Lo moom tamit gis nga tekkaaral bi ci am Cheikh Abdou Bali moom tamit fi mu nii gis nga tekkaaral gi ci am deful benn benn yëngatu fi nii te gis nañ ay ndawam yu bari yoo xamante ni dem nañu ànd ak yeneen coalition yi. xam nga loolu man jaaxal na ma jaaxalu ma xam nga dëkk bi ñoom ñëpp niñ ko xame noonu lañ ko xamee ñun daal li ñuy wax ñu ngi tàllal ñëpp suñu loxo su fekkee président soxal na leen te bëgg nañ président li président def na leen neex neex nañu. danañ ko liggéeyal bañ xam ne liggéey na ko waaye nekk daal say militant te bëgg liggéey ñun ñu ngi lay taalal suñ loxo xam ne li président def ñun bëgg nañ ko te fas nañ ci yéene am ndam. mais est-ce que du ngeen ci wéet. waaw wéet moom wéet dem la suñ mën taxaa waxoon rek ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem ñun ci loolu lañ fas yéene nag dem rek la ñuy def li ñu war a def it dinañ ko def di ñaan ndam nag rek. mais est-ce que président def na Touba lu tax askanu Touba wala askanu département war koo mën a voter. président li fi def benn président mosu ko fee def corniche bii muy liggéey fi mu ne nii te eggagul sax danaa ko filma yónnee la ko nga xool ko xam ne mu muy 30 bi. dafa wër Touba gépp wërin wu rafet wu nga xam ne liñ ci war a def li ñuy def pont yeeg yëpp ñi ngi koy def. waa corniche neuf neuf ans neuf ans ab corniche. neuf ans yi mu fi def yëpp non non matul neuf ans def wax neuf ans. def na fi ci hôpital bi non dama ne bi nekkee président ba léegi. hôpital li mu nekkee ba léegi hôpital mat la bu sofi la la lay def bâtiment bu nga xam ne six milliards la quelque Matlaboul Fawzeyni hôpital boo nga xam ne à quarante milliards la wala quarante deux milliards li mu def lépp neexuta war daal waaw mais bàyyi la Touba nag yeyoon na hôpital Touba deuxième ville du Sénégal waaw mais yeyoo na ko mais bi mu ko yeyoo tamit def na ko li mu ko yeyoo moo tax mu def def na ko te boole wu ci wax te oto day day topp ñi koy wateel wala ñu koy bëgg wala ñu koy bañ mën na ko bañ a def waaye nag dafa topp ni moo war a liggéeyal askan wi yëpp moo tax liggéey na fi lu nga xam ne ñëpp ànd nañ ci rafetlu na ko ñëpp ñëpp ko rafetlu waaw d'accord Euh, Baye Alla yow daal euh, jàpp nga ne yéen di ngeen gagné conseil départemental bu Mbacké. waaw jàpp nañ ko te ñi ngi koy dox ñi ngi koy wax ñun li ñu wax daal def nañu ko dinañ tàllal ñëpp loxo ñi mer ak ñi merut ñi merit xëy na dafa am lu leen tax a mer feeg booba lu ne xew na fi war nañ mën a wax ak ñoom. ba jubóog ñoom lan nga jàpp ne moo leen tax a mer. loolu xam nga du neex a xam xam nga nag parti li may wax rek toujours mooy ñëpp mënuñoo bokk falu ñenn ñi dañuy jàppale ñenn bu ñenn ñi falu boo lëggee bu leneen amee ñeneen ñi falu waaye tey ma falu wala tey ma jiite te ñi la jëkkoon nekk yi bu te xam-xam ëppoo leen ko yaakaar naa boo waxee ni dama bëgga bàyyi ngir liñ tànn diw sëg bëgg daa des rek. mais est-ce que considération bi leen président war a jox dëgg yéen ñi ko jàppale ci département bi wala commune bu Touba ndax considération boobu yëg googu ndax président jox na leen yëg googu. xam nga président moom bu fekkee defee ko ko it ngi ko ci tàllal loxo mu gën ñu ko def ndax lii ñu jublu ñun dañ cee bëgg ndam. te yaakaar nañ ni nañ ko ci tàllal loxo moom itam bëgg mu defal na lu nga xam ne ñun ñu taxaw war koo jàppale ci liste yi pour mu jàll di ko tàllal loxo nag mu fexe ba département bi ñu mun mun ñu recevoir nu moo xam ñi mer moo xam ñi ko bëgg moo ñi xam ñi taxaw nekk ci liste bi ñun daal ñu ngi ko ci tàllal loxo mu defal ñu lu nga xam ne dana tax ñu mën a gañee moo xam dañuy woo Dakar dalal ñu moo xam lu ñuy def mu defal ñu ko mais bàyyi la lan mooy sax xalaat ci euh, dañuy faral di gis ay politiciens yoo xam ne du ñu dëkk Touba mais léeg-léeg bu élection jotee dañ leen di dégg ñuy ñëw Touba di fa mel ni lu fay wut ay militant wala wala bu yeble amee wala bu ñuy lijjantiloo dara Touba yeble dara ci màggal wala dara ki ñu fa yebal daal du dëkk du nekk ku dëkk ci dëkk bi. waaw loolu man dama koy wax Abdou Khadir di ko waxaat. militant bu jógee euh, benn ministre bu jógee ab département ñëw fii ci Touba dañuy lijjantil yaakaar naa bu yàggee rek lëj la indil ndax gis naa ci kilifa yu ci bari dañuy ñëw rek dañ fiy bindoo. wàññi suñu militant rek yow ci seen département loolu tam bokk na tam ci la ñuy gën di yàqal. maanaam transfert électeur ñu ngi koy def mais gënut ci kon am na ñu am na ñu dëkk Touba ñoo xam ne ci yenn gox la ñuy voté. Euh, Touba moom ñi bindoo te bëgg fee watee ñëpp Touba la ñu mais yeneen kilifa yi dañuy dugg ci département bi te duñ ñu defal dara ñun responsable yi xëy na ñëw di ñu jéem a xeex wala dara di ñëw di transfert suñuy électeur di yóbbu loolu moom gënul ci benn benn kii. waaw loolu la wax daal li ñu ñaan président nañu wutal nit ku nga xam ni Touba moo ko neex ci la bëgg a liggéeyee ndomu Touba moo ko neex. non non bàyyi la ko ci dëkk bi dafa am information boo xam ne dañ koy faral di dégg ñu ne dafa am ay kilifa yoo xam ne ci biir APR wala benn Bokk Yaakaar nekk ci euh, département yi nga xam ne ñoo wër Touba am seeni xale yu leen nekkal Touba. jël foofu ay nit ñu bindu ñoom ca seeni gox xam ne bu vote jotee ñoom dañ leen di yàpp si ay oto ñu génn Touba dem ci gox yooyu voté la ji ñooñu waaw loolu moom laa wax ni wax naa la ci ba pare président ci moom moo ñu wutal war a wutal nit ku nga xam ne Touba lay dëkk ministre bu nga xay Touba lay bëgg dëkk bëgg ndamul Touba yaakaar naa bis bu ñu amee loolu rek gagné Touba danañu gën a yomb. d'accord mooy comme ni mu def ne samp ko nga xam ne ci biir dëkk bi la dëkk ñim am ci minitan Touba lañ dëkk. bu boo ko boo ko booleeg ñun ñi nga xam ne bëgg nañ bëgg nañ paysan bëgg bëgg mu am ndam mu jàppale ne li ñu li ñu war a def danañ ko def ba. mais est mais est-ce que waa Touba miin nañ Matar. waaw politique amul miin nun ñii tubaab mënoo mënoo daj fépp nga miin ko kenn mënu ko parce que lu dëkk bu bu ñu naan mooy deuxième ville Matar mënu koo miin man mënuma ko moom kone mine miin ko miin boo gisee ñu tabb dagg ay zone def noonu loolu moo tax kenn miinu ko moo tax buñ seetalee zone yi kenn ku ne miin fa nga ne les bi Matar dong newu ci. d' accord da cee nekk ànd ceeg ànd ceeg. waaw yow euh, cent personnes. d' accord yow ngay opérateur économique nekk marché Ocass te marché Ocass am doole ci électorat bu Touba ban taxawaay nga amee yow marché Ocass. taxawaay marché Ocass wax ji lu muy bari bari dinañ fa dem li ñu war a defantee ñoom danañ ko def yaakaar naa bu dara desul lu jàppale danañ ñu jàppale ci élection yi li ñuy wut ñu am ko bu ci yàlla àndee. d' accord jërëjëf Ba la ñu lay sant di la gërëm. waa ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax na ñu ko paysan ñun ñu ngi koy taalal loxo liñ bëgg nam lañ ci bëgg yaakaar nañ ko nañu ci jàppale jàppale Matar nu ànd ak moom jàppale ko ba li ñuy wut buñ ca yeggee ñu am ko niñ ko bëggee. jërëjëf incha jërëjëf.